salaamaaleykum mbokk yi baa ngi li ñu ñëpp ci turu Pape Omar Gueye ak magam ju jigéen yi toog tey muy kiné ak soxla ummi mii nga xam ne macha allah tubarkalla li nasara arab yi di wax la garwa di nuyu sëriñ Aliou bu baax li mu wax yëpp dëgg la ci jëflante yu rëy yi nga xam ne Baye Idrissa Gueye jëflante na ko ak mbooleem góor yàlla yi nekkoon ci biir réew mi wax naa fi barki démb ma ne ñun ñëpp wala képp ku nekk ci réew mi tey nekk ngir dina rek da ngaa jàppoon ne Baye Idrissa Gueye sa taalibe la loolu li ko ko mayoon mooy fexe woon na ba mbooleem penc yi nekk ci biir réew mi mu jëfal leen ay teraanga ba ku nekk jàpp ne kii sama yëf la. di wax ne Omar Gueye mii wax na léegi ne lii di xew fii ci kër gi depuis bi góor gi génne àdduna ak léegi leçon la pour mbooleem njabootu Baye Idrissa Gueye parce que kat du ku génn àdduna rek li xew xew li xew Baye Idrissa moo ko liggéeyal boppam liggéeyal ko yàlla liggéeyal ko góor yàlla yi parce que dama wax ne réew mi tey. tànk yi fi nekk tey téeko muy kilifaay diine yi ñi ci ëpp solo tey te ñi tax ñu leen wax ñëpp dawal nañ jóge seen dëkk yi ñëw ba fii mu yegg si fi muy xalif général de Mouride muy xalif général de Tijane muy xalif waa na bàyyi muy ñeneen ak ñeneen amul kenn ku déplacé wul ak sa njaboot ñëw ronu kër Baye Idrissa Gueye yi ak sa bopp. kon ci turu Pape Omar Gueye mi nga xam ne mooy góor ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ak mboolem njaboot gi fi nekk ndax wax naa ne Baye Idrissa Gueye du njabootu deret rek la am am na njabootu deret waaye am na njabootu ruux goo xam ne ñi ngi fi te ñëpp ay doomam lañ ñëpp ay doomam lañ te ñëpp dañoo bàyyi seen lépp ñëw toog parce que moom moo ko ji ci ñoom wala moo ko jëmbat ci ñoom wax naa ne li ñu wax léegi yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ku mel ni mag ñi àndoon ak moom bàyyi sëriñ daamloo mii nga xam ne ku nekk xam na ne amoon na ngànt pour baay pour ñu doxal waaye heure bu nekk da nga gis mu kurti kurti même bu fekkee day day ñëw di jey jey sax dana ñëw toog loolu mooy coloré ca ñaata yoon la daan toog fii di wax ne maa ngi ñaan yàlla yàlla ma sa Dienth loolu gëm-gëm la ak bëgg-bëgg kon ci turu Pa Omar Gueye ak njaboot gi yëpp ñi ngi sant ñëpp di sant sëriñ di sant tamit euh, sommu uh, Ousmane Tanor Dieng bii nga xam ne moom itam uh, xaritu Pape Ibrahima xaritu xaadim la uh, wane na ko ñoom ñëpp wane nañ ko maa ngi wax xaadim barki démb ci dëj bi fii di ko tooñ bi mu toogee Birane mane ko bàyyi leen seen groupe bi yi ngeen defee ni ngeen toogee ñëw leen ci biir mbooloom bi. yooyu li muy wane mooy dëggoo wala bëggante gi nekk seen diggante fu ñu dajee rek dañuy bëgg def seen group bopp loolu yàlla na sax parce que seen baay ak seen maam yi liggéey nañ lu war a tax ngeen taxaw. pour téye flambeau bi dem ak moom maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ñëpp yàlla jàppale ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm euh, ñi ngi ñaanal ñëpp képp ku fi ñëw yàlla may la euh, li ñuy wax ci yoolum njaal ci dikk yi ak dellu yi yëpp yal na yàlla yal na yàlla may ñëpp mbaax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lii ku mu doyul dara du la doy mbir mën naa dal ci sa xew ci sa kaw waaye la koy wutu ba yenu ko ak yow dana tax lu diisoon oyof ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci démb fii sëñ Muntaxa fii toog li wax Omar Gueye mi loolu war naa doy képp ku njabootu Baay Idrissa Gueye loolu war na koo doy sëkk fa tabaarakallaa lépp rafet na ñu ngi sant di gërëm salli ala sayyidina Muhammad wa sallam